Je comme Ousmane Sonko reste notre seul et unique candidat Mon lañuy andal di xeex ci li ba yalla mayu ci ndam Birame n'est pas candidat Bassirou Diamay n'est pas candidat Abass Fall n'est pas candidat Guy Marius n'est pas candidat euh, euh, euh, El Malik Ndiaye n'est pas candidat le candidat c'est Ousmane Sonko ñun ñep ci Ousmane Sonko la lié. liggéey pour mu donc gars yi nañu buñu commentaire focus leneen li war a xam mooy fi mu ne nag ku ne téye carte am boo ci mënee boole sax yu seen waa kër nanga ko def sensibiliser leen ndax am na ay yu tàmbali mbubbu Ousmane Sonko ne moom la ñuy collecté lay parrainage fekk ñeneen la ñu àndal li ku ne war a comprendre mooy parrainage mënoo ko def furul ca commune ba nga dëkk maanaam fa ngay voté moo xam yaa ngi Sénégal wala bitim réew dëkk bu ne Pastef am na fay ndaw yoo xam ne ñooy gérer fànn boobu maanaam dajale parrainage électeur commune ba ñu affilié wu loolee responsable Pastef yi communiqué guñ ci kon li wóor ci jamono gii ñuy def vidéo bii mooy ne tekk téye sa carte ci déglu waaye surtout di sensibiliser ñi la wër te amuñu accès ci yenn information yi bu kenn récupérer seen carte bu leen kenn dig ay financement ba tax ngeen di photocopier seen i pièces di ko joxe buñ ca yeggee ñu ko mën nañu rapproché wu ci responsable Pastef yi nekk seeni koñ ñoom responsable yi tamit dem ci base bi communiquer ak militants ak sympathisants yi.